Ousmane Sonko kuy wax ci moom maanaam di ko tooñ te tooñu la def la dara yàlla dalay àtteeg moom te du jóge ci moom. Hmm? seet lu baax lu ma la wax. Cheikh Yérim mi Macky Sall la fi toppoon. Hmm. ànd ak Macky Sall. Macky Sall donc jot diñeeru et tout mu foogoon na ñii dinañ ko woo pour mu mën a liggéey maanaam la mu foogoon la mu doon dund ak Macky Sall. dina ko am fii. te ñii nag ñoom xale nee naa président jeune xale yi dañoo takku ni sayu naanaa. Cheikh Yérim Seck xam na ne dara amatul ba pare Cheikh Yérim Seck bu demee ba def C 221 boobu mënoon na ma woon a jël sax mu teg ma ci wetam bi au moins sax am benn ampleur bi wax ma rek ñi mu tegal foofu ñëpp xale yoo xam te ne juddooguñu ñu fettagul cib nen tey ji lu mu ci am mu toog na naan Ousmane Sonko tëj ma tëj ma loolu la bëgg fi mu nekk nii gàcce moo koy rey waaye Ousmane Sonko du ko tëj day tëj Ousmane Sonko daam jotam Ousmane Sonko xamul ne sax Cheikh Yérim mu ngi existé Cheikh Yérim kay mooy soccu Ousmane Sonko di ko diwoon di ko diwoon ni peur téye ko ni kerem barbasik bu màccee jox moromam mu tàkkamti ko mais Ousmane Sonko amul amul jotam mooy Ousmane Sonko daa am jotam léegi na wax ji mooy lii nga xamante ne jël na doomu jaamur ji tëllu na ko amendooy boo ba tey dégg nga mu waxaat ci waxu amendooy dama lay laaj rek moo tax gis nga ñii xale yi nga xam te ne ñooy opposition di ànd ak ñii nañu tey def très attention ak ñii ñii dañ leen di jaay saraxe leen te du mujj fenn amee César Karamara déggati nga ay waxam lajjo boo déggee ay waxam foo koy déggee te te boucher wala wala wala bouclier bu weesoo yooyu dégg nga déggati nga ko wax waxu la jóg ah kii kii ni mu ta jéggi jóob mi bi ñu ko fi tëjee cinq jours ci la ci la ñëw ni mu ta di waxtaan négocier génne vingt huit millions waaye des na deux des na deux de jéegi deux ku koy may man de sama wàllu may ma ko mayu ma sarexewu ma leblewu ma fàttewu ma na ku fay vingt huit mën na fay deux naka te jéegi yoroon na vingt huit jéegi maa xam nga ne demul ak campagne seen nga jéggi fer jéggi li muy réy laa ma jox te pourtant woo naa ko téléphone de billaahi jéggi bañ maa jël ma message ko jéggi tontu ma man ko jéggi wata wat jéggi rek ki leel jéggi rek ki leel jéggi de moo bañ mu ngi nii tey mu ngi nii jéggi lu muy waxati ñama woon caméra ñama woon di léegi jéggi nee na tekk tekkaara noppi deux millions yi procureur des deux millions de jéggi job doit venir alalu alalu askan bi la euh, salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen sama kàddu yi nag waa APR ñoo ko moom plus particulièrement waa région de Matam ngeen mel ne ay dëmm yu jëfur la ngeen def ca Matam bëggoon ko def PM Ousmane Sonko yëg naa ko damaa amagul seen jur suba laa ñëw ci yéen la xew ca añam dinaa ci ñëw waaye Maître Malick Sall tax may wax faris bi garmi bi bette bette bi luy lekk asgor bu ko séenee sama vidéo bi duma ko def ci tukulóor ci olof laa koy def pour ñoom ñëpp ñu mën cee jot aduna war nga këpp jot ko metti Malick Sall macha allah muy avocat bu mag bokkoon fee ca France tekk ca France fa mu am kër France kenn cee amu amu fa kër maître Malick Sall mi àndoon ak président Macky Sall jël alalam di ko jox président Macky Sall di jàppale président Macky Sall nee ñi rapport di épingle maître Malick du ci bokk ñi ñu naan kaay yaa jël réew mi kaay goqi la nga jëloon maître Malick Sall du ci bokk maître Malick Sall xam nga lu mu xam def yàlla tax ànd nag ak président Macky Sall àndu ngor àndu ndawle mu subir nag injustice bu ne ci biir APR man ma fekkee moo nekkoon ministre ministre li comment dire ministre de la justice soit disant ñu nekk APR ñoo xam ne bëgguñu Maître Malick Sall feex nañ ba xeex Maître Malick Sall président Macky Sall xëy rek wàcce ko wàcce ko wàcce ko soof def lu ko neex mu ànd ak ngorom dëkk Maître Malick Sall mosul yuuxu mosul ut wallu mosul wax nit ñi dimbali leen injustice bu bëri nag ñu teg ko maître Malick Sall si biir APR mu muñu ko muñ loo ko yàlla maître Malick Sall ñu ko xam sax bëriwuñu ñi xam maître Malick Sall bëriwuñu parce que maître Malick Sall du nitu média maître ku bëgg réewam ku fonk réewam ku jël réewam teg ko place mooy maître Malick Sall maître Malick Sall ñu dégg na ànd ak Pastef man ko lu war la ndax nag monteur yu baax yi rek a bokk heure maître Malick Sall bu demee ba wàcc ànd ak Pastef rek yow wàcc nga sa wareef nga def te man Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi désormais yow maître Macky Sall maa ngi sa ku la laal ku ne ma dëgg ko ku la laal ku ne naa ko écraser ak ku doon ngeen jàpp maître Macky Sall di ko xas ko wax lu ñaaw yéen appel la ngeen mës a defal maître Macky Sall ban njëriñ ngeen amal maître Macky Sall sans contraire maître Macky Sall moo amoon njëriñ APR ndax maître Macky Sall àllam la doo jël du ko def ci APR maître Macky di jàppale Macky Sall di rakkam te yar rek tax teewul yéen ñi ngeen xam te ne yéen nekk biir APR ñu bokkandoo APR bi yéen doon xeex maître Malick Sall ci biir APR maître Malick Sall dama ànd ak xeex Pastef ngeen ne pourquoi ça day ba mu neex te maay doon bouclier man Fatimata Ndiaye Fouta Tampi ku laal sa kaw ak koo mënti doon désormais li ngeen nekkee woon ak ah, yaa ngeen doon def day jeex tàkk jeex tàkk la ku nekk am nga sañ-sañ dem fu la neex maître Malick Sall mu ngi Pastef ñu ngi ànd ak moom à 1000 pour cent ba xam yéen loolu ci mën. man ma métti lay am naa lu ma métti Ousmane Sonko nga maatam mu ngay wax lu rëy ay waay waay waay mënu maa direct ci lii ay lii mënu ma cee wax tey ay am naa lu ma metti ay fuutanke yi kaarpulaar yi foo leen ne ay seen bët di xool allahu akbar ndëk ay waay waay am naa lu ma metti de barke déggal di ay waay ay waay ay waay am naa lu ma metti barke sëñ naa lu ma ay Ousmane Sonko jéggal ñu ay Ousmane Sonko baal ñu àq jéggal ñu ay mu sell mi baal ñu ay Ousmane dëkkati lii xam nga ko Ousmane avec ça ñu ne yow bëggoo réew mi avec ça yow ñu ne bëggoo tukulóor yi avec ça ñu neen xarpulaar ñun ñun sa sa plan nekku ci Ousmane tey la ngay nekk di wax nii en direct nii ca Matam ay gàcce day bàyyi borom baay ma ay ñun xarpulaar ubbi leen seeni gët yii bàyyi leen affaire ne da ko bandum bii lu ñu musiba bu ñu dal rek ne da ko bandu moo moo ñu ko teg musiba bu ñu dal rek ne ko bandu moo ñu ko teg musiba bu ñu dara rek Macky Sall la ñu ko teg ak ay ñu ñoo ëpp ay leader ci biir APR ñoo ëpp ay leader ñun waa Matam te gat defaluñu ko tous tous okkin lokkin ñokkin ñu ko dara tous tous naa la ree tous kii ñu jëloo diaboliser ko kii ñu doon wax bëggul xaar pulaar yi kii ñu doon wax nitu fitna la masuñoo def ma masuñoo wax xoola ji wax ju rëy xoolal kii vision am xoolal kii lam ñu wax tey ji ca région de Matam ay di ma naqari waay neexuma waay ay waay mënumaa direct waay ay waay mënumaa direct tey waay ay waay mënumaa direct da ngeen may dimbali ngir yàlla ngeen jël sama compte bi ma duggal nii ngeen abonneel ma si rek ma am mille abonné mille rek baax na li ma bëgg a direct ma direct ko ci guddi gi mënu ma féete daal nii ay mu sell mi yaay faaris kay yaay gaat mi yaay gor luy lekk as gor bu la seenee ngaang ay man tey sama gàcce tey jii